auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil ummi wala alihi wa sahbihi wa internet yi nga xam ne yéen a taamu di suivre seen télé bi nga xamante ni mooy Salam Vision di télé bi nga xamante ni mooy jàmm ju ànd ak gis-gis ñi nga am mbégte tey li koy sabab mooy fi nga xam ne fi leen dellu siwaat ndax ñëw nañ fi ñëwaat fi waaye dellu si siwaat nañu waat tey muy fan Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar kan lañ fi seet si tey ñu Alaaji Demba Touré ñu gën ko xam ci Kanka Moussa ñu bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam lenn itam ci tolluwaayu réew mi waaye lenn ci li nga xam ne ñu koy dimbalee jaamu yàlla yi saa suñu tam ci loo xamante ni fekkee moo tax tey ñu sañ ko wax ndax nag wama shahid naa illaa bimaa alif naa Alaaji Demba Touré Kanka Moussa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay waaye ñu ngi lay dalal ci biir jotaayu xam-xam bi faj sa jàngoro salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa taala wa barakaatu Samir Seck ñu ngeen ko xamee Talla ci la di la nuyu di la ziyaare di la ñaanal jàmm salaam di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi kilifa cosaan di nuyu ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi seetaan ñu ngi déglu si internet bi. ak euh, partout dans le monde daal si internet bi. macha allah képp ku ñu xamante ni dañuy seetaan wala dañuy déglu rek. Mm-hmm. ñu ngi ziyaar di ko ñaanal rek jàmm salaam. di ñaan ci yàlla nag ñu tàmbali bismillahi rahmaani rahim eggale ci alhamdulilahi rabbil képp tamit ki nga xamante ni yaa ngi bàyyi xel yaa ngi déglu ñu lay nuyu di la ziyaar bi la ñaanal jàmm ak salaam ñaan yàlla defal ñu si Sénégal gii nawet bu am barke. nawet bu ànd ak naataange bu ànd ak xéwal. ak ndox bu sedd yàlla barkeel nawet bi. amiin yaa rabbi si barke Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. si barke Serigne Babacar si barke yi. di ñaan ci yàlla def jàmm def yaa salaam. def jàmm def yaa salaam ci réew mi. yàlla def sutura si réew mi def barke si defal ñëpp seen aaju faju macha allah lépp loo xamante ne nekk seytaane musiba balaa yàlla fànk ko si dëkk bi génn ko si dëkk bi ak alxuraan karim dafa rek di jaajëfal ñëpp di ziar ñëpp kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi mm-hmm. ñëpp ziar na ñëpp képp nag kilifa si Sénégal rek ba si suñu bokk chrétien yi ñëpp ñu leen di nuyu di leen ziar macha salam yàlla na yàlla def jàmm si réew jërëjëf Alaaji Demba Touré Kanka mm. Moussa ci nuyoo bu am solo boobu waaye tamit ci ñaan yi nga xamante ni dëgg yàlla ñaanal nga ko réew mi mm. li may faral di wax saa su nekk euh, moo xamante ni fi mu toll nii bu fa tàkk-tàkk amee mm. yow boo ci muccee sa jabar du ci mucc wala sa doom du wala sa benn mbokk du ci mucc kon di fa ñaan jàmm day daal di am solo kon ñaan yi mm-hmm. tamit ñoo ngi ñaan yàlla sa borom subhanahu wa taala moom mi am sa mën tey def yàlla na mm-hmm. yàlla dégg sa làmmiñ bi waaye bu ko dégg itam yàlla na ko barkeel kon nag mu ñaan yëpp ci dara ji yoon ci Alaaji Demba Touré Kanka Moussa borom pënd ko fetal foofa laay tàmbalee tey ana pënd ko fetal bi. borom pënd fetal fetal bi mu ngi ci biir euh, taala. Ah, dama daan def heure nga jox ma poudre fetal ma sangu. tey ah, ma <laughs> dinaa may beneen budul poudre bi. Maodo li gën a garaaw poudre bi laa la may. macha allah sama doomu léegi sama am sama waay. da lay uh-huh. am solo. yàlla sa jàmm yàgg rek. alhamdulilah. démb fi ma bëggoon ñu xam tàmbalee waxtaan wi tey. Hmm. mooy jamono fi mu toll. Hmm. gis naa ne tey teg nga fi yëfi mag. Hmm. day am solo loolu dinañ ci ñëw bu ci kanamee. waaye alaaji Demba ñaar yi nga xamante ni ba ñu juddoo ba tey ñu ngi koy dégg te naa ni dañuy faatu bàyyi ko fi. faru rab. coro rab. lan nga ñu ci mën a wax Demba. faru rab coro rab de digital képp kuy dund rek nga am ruu. ruu bi nekk si borom moom génnagul àdduna hmm. du tàggoo ak yow parce que yàlla defee na borom moom génne àdduna hmm. dina tàggoo ak xorrab bi wala cororab bi que waaw parce que loolu moom yàlla suñu borom moo ko mooñaale ak ñun doomu aadama yi hmm. alaa xuli moo ko mooñaale ak ñun parce que fa dëggee la farurab cororab dafa sonal nit ñi te dafa gàllankooral nit nit ñi lu baax a baax moom farurab cororab ma ne la di nga dem si place nga nekk foofu mu jëlee la foofu. Mm-hmm. di nga nekk sa kër mu tere ngi juboo ak waa kër gi teel a déggu ak waa kër gi. Mm-hmm. bu dee entreprise bi tamit c'est la même chose. Mm-hmm. bu dee njabooti bi. ndax moom moo koy def. parce que moom mii rab da lay nerloo. da lay xaftal. comme ba xaftalee nit. boromam xam nga dootul nekk si sago. moom fa rab bi tamit aussi c'est la même chose. bu nekkee si yow toujours. day bëgg ngay mer doo bëgg a kaf doo bëgg a mën ngay toog toute la journée doo wax ak kenn. doo wax ak kenn su la xasee bàyyi yow mi ku mu jàppoon nga naan man lan ma tax ma meloon nii la ma tax lii dalal ma te fekk moom moo def loolu. Mm-hmm. kon moom fororab baaxul ci fenn. Mm-hmm. bu dee jigéen bu dee góor ku ko am baaxul ci. Mm-hmm. bu dee ñun góor ñu ne la cororab bu dee jigéen ñu ne leen fororab ñun góor ñu ne leen cororab fororab cororab xam nga fororab cororab bu dee côté jigéen. lankat da nga am fororab bu dee góor ñun da nga am cororab léegi loolu moo waral léeg-léeg ngoro nit nekkati ngoro di ngoro ngoro diw bu dee ko góor ki léeg-léeg mu bañ léeg-léeg mu dem ba ci biir mu daal di découragé wala ndaw si dem ba dem ci biir découragé mm-hmm. wala mbokk yi découragé fekkee ñaari yooyu ñoo déggoowul mm-hmm. parce que fororab bi cororab bi day yàq mm-hmm. tamit léeg-léeg ñeneen tamit seen rawaan yi ak rab bi ñoo dul déggoo rawaan bi ak rab bi bu ñu déggoowul mooy waral nga gis xuloo bi di bëri wala commencement ngoro bi neex yi dem ba ci biir sëy bi coow xuloo bañante wala nga yéene sa jëkkër sax lu baax doo ko mun wala nga si jabar tamit yéene jëkkëram lu baax sax du moom moo def parce que moom day féewale daal bokk comme ni nga dégg dëddale dëddale dëddale moom tamit day dëddale day féewale baare day xañ nit liggéey day xañ nit jabar day xañ nit jëkkër day xañ nit place doom jàmm tamit dala koy xañ ci kon nag soo xamoon ni ngay def bu mu bañ a di la yàqal wala di la attaque boo hmm. xamee nag du la hmm. hmm. lu ma kenn nett yow ndax damaa fekkee. ñu bokkoon benn benn bërëb bu doon liggéeyee. li tax ñu naan Alaaji Demba Touré. mooy xaritu jigéen ñi dama gis ay jigéen ñoo xam ne du benn du ñaar ñett. ñoo xamante ni dañ amoon jafe-jafe bu mel noonu. nga dimbali leen ci ba tey kenn ku ci ne ma nga sëy. ñaata turandoo nga am tey yoo xam ne xam naa leen. dëgg la ma bëggoon xam yow ban secret nga ci am ba tax yow nga mën ci nga xam fi nga jaar daal ba ba mën ko maîtriser. si ban côté comprendre ma. maanaam dama gis ay jigéen ñoo xam ne yow da nga leen dimbali ci wàllu farba. ah ñu amoon ko. mënuñoo nekk ak góor loolu kenn nettali ma samay bëtama may. waaw dëgg parce que yàgg yow man a yow bu ñu àndee ba léegi 10 ans. bi nga ci am laa bëggoon nga wax ma ban secret nga ci am ba mën a maîtriser xor rab ndax gannaaw xor rab moom li muy def ak coro rab li muy def dafa dafa bëri tam li mu mën a yàq itam dafa bëri mais yow nga am boo xam ne fa bëri waa na ñoo xamante ni bu fekkente ne ñaanal nga ci fukk hmm. juróom-ñett ñëpp mucc nañ bu échec dee am ñaar la ci li ma mën fekkee man waaw alaaji taala xam nga li may faral saa su ne hmm. xam lépp hmm. mun lépp man de yàlla jaglelewu ma ko baax xam lépp. Mm-hmm. mun lépp. Mm-hmm. déedéet yàlla jagleel ma loolu am na lu mu jagleel ak tuuti. Mm-hmm. ma gom ko nag. wu ma ko ndama wu ma ko. wu ma ko. non non wante ku ci yàlla boole ak man. ci ala kulli alim ci kattan suñu borom ak mbaaxaayam ak mun munam bu ci yàlla àndee parce que ñaan yàlla mooy ànd yàlla mooy nangu yàlla mooy dogal. ñaan def du yàlla nag mooy mooy nangu yàlla juboolee. mu nangu mu antul ala kulli loolu. for rabbi fi rabbi dina leen parce que xam nga digital ñaan seen taala ñaan secret la rek. Mm-hmm. ñaan secret la. xale mun na for. Mm-hmm. mag mun na for. Mm-hmm. ñun nag lu ñu yàqal léegi si jamono bi. xeebaate bi. te doomu aadama soo ko xeebee day mel ni yow suñu borom. suñu borom nga yàlla nga xeeb. te xeeb yàlla moom ëpp naa def. waaw xeeb yàlla ëpp naa parce que yàlla. mooy def jagle am def ko si doomu aadama mm-hmm. kii day xëy liggéey métier bu ne kii day xëy yàlla fal ko place bu ne jox ko ndomu tànk bu ne mm-hmm. kii day xëy yàlla def ko xam-xam bu ne mm-hmm. parce a jàng yàlla def si moom xam-xam waaw wante nag nga jàng nga xam bunt bi mu gën a leer tamit moo gën a baax parce que yàlla may nga doon day def si yow ijaaba ijaaba mooy soo ko déggee yàlla mën na def si sa làmmiñ am barke mm-hmm. tey jii nga ne man dina ma bëggoon nga ñaanal ma am borom kër mm-hmm. wala ma am jëkkër wala ma am place wala ma am kayit wala lu ma soxla mu faju mm-hmm. gab làmmiñ bi am ijaaba mooy barke nga ne yàlla na yàlla sottil bu dee la bon nga ne yàlla na ko mu musul yàlla bu dee amin bu ñu àndee rek mu baax waaw su defee nag nga naan ah man de diw moomu ñaanal man de diw moom te fekk nag lépp yàlla parce que lépp lu am yàlla fekk lépp lu am. Hmm. yàlla fekk na ko. man nag samay mbir lépp lu xamante ni lu àndul ak yàlla. Hmm. lu bokk la mbir yàlla. Hmm. man Demba Touré bokk ma ci. sama lépp yàlla laa jiital. yàlla laa koy jagleel. moo tax du ma joxe délai du ma joxe jour du ma joxe rendez-vous du ma joxe du ma joxe dëggu ma rendez-vous. délai wala app wala dara. du ma joxe app. dinaa daal sababu wakkilu si yàlla suñu borom. ma ñaan ko dëkk sama loxo ñaan ko def samay mbir def samay secret parce que ñaan secret rek la. parce que tey koy defee. nu ñu koy fajee lu yomb la taala parce que lu yomb jàppul yàlla moo tax nag wax naa la si rajo si internet bi mm-hmm. kon nit am na mun na xam dem defee naka su dul noonu dëgg la yàqal kooku mm-hmm. lor kooku mm-hmm. kon yow mii ku mu dégg sa kaddu bakkaan ki am na ko mën a ma am na mu dégg sa tiktok ñun soo defee soo li am li am <laughs> wóoruma xaw ma kirti kiw mu gën contrôle mu man dama xaw ma danga may laaj lenn ma xam doo ma laaj am expliqué ko yàlla dama def ko mu ne ma xoolal waa ji daf ma daf ma bëggoon takk plus de cinq ans famille bi di bañ mu ne malheureusement yow bi mu expliqué nga defal ma ko ma nga jox ma bi ma sangoo ko ma takk affaire bi rek léegi yàlla bi am na may nañ ma waay tey koo mbokki dana ila ala kulli an ma ne ko su ci yàlla àndee hmm. dina am bu ci yàlla àndul na xaw ma dara ah, tey buñ ñaanee nag yàlla ànd ci hmm. moom bu doon topp plus de at yooyu mënul am mënul sotti yàlla def na jàmm salaam affaire bi ànd na. kon xam nga loolu. loolu loolu moo tax ma ne ni suy ñaan rek jagla suñu borom ngay nga am. ak yaakaar suñu borom nga am. waaw lu ci am solo daal muy sabablu wàkkiru si yàlla lu des nga bàyyi ko loxo suñu borom moom mooy mënti lépp. parce taala yàlla moo mun yàlla moo xam. yàlla mooy may yàlla mooy joxe jaam de sabab rek bàyyi taala. macha allah mu doon lu am solo te ku dégg li nga tontit xam ni wax dëgg yàlla wax bu leer nga wax ndax euh, fii moom lu fi waay di bëgg di ko fexe rek. day fekk mu ànd ak dogalu suñu borom kon macha allah mu doon lu am solo kon yàlla na yàlla xeb doole te taxawaay bokk na ci tamit ni nga ko waxee. Mm-hmm. gis naa tam ñoo nekkoon nañ ci ay jafe-jafe xat-xat. Mm-hmm. mu mel ne seen wërsëg dafa tëju. Mm-hmm. wala ñu mel ni dañoo umu wala ñu mel noonu. d'ailleurs man bokk na ci foofu laa xamee sax euh, poudre fetal hmm. ma gis jëflante koo jëflante ak ñoom hmm. tey jii suñu borom hmm. am naa ci anecdote yoo xam ne mën naa nettali ndax fa ñu nekkoon di fa liggéey nit ñëw na fa toll ci ay jafe-jafe yoo xam ne keroog ngir mu jox la loxo xéewal boobu boo ko seetalee sax dafa jafe woon dëgg waaye sa émission la gisaat ci internet bi. Mhm. jëlaat sa numéro. waaw c'est vrai bi mu la njëkkee woo ba nga wooyee ko téléphone 200000 la la la la maa ko def waaw dëgg la waaw dëgg la secret boobu itam na naka la demee fi mu ne loolu waaw lépp daal euh, taala. Hmm. li ma lay wax rek lépp mbir yàlla rek la. ndeysaan loolu yëpp. Hmm. mbir yàlla rek la. parce que yàlla la neex. Hmm. yàlla moo ko jag moo def mu antu. yàlla moo ma ko jagleel. parce taala kenn mënulul boppam dara. wallaay ndeysaan. kenn xamulul dara. Mm-hmm. daam day sabablu rek mm-hmm. rek def lu ko war. Mm-hmm. xam nga la moo gën a am solo bàyyi taala. ñu li ñuy xaw a réer les mbir. nit lépp mënut a def lépp looy mënut a wax des fois da ngay dégg diw kooku te pourtant ba mu ñëw dafa am ku ne ko. mu ne ko est kooku aay na. man dafa aayul sax dégg naa kàddam. te aussi doy na ma. ba tax nag kaddu bi la doy noonu hmm. ngëm-ngëm bi nga am noon hmm. même su fekkee Serigne Demba Touré ay loon sax ngëm-ngëm bi rek ak yaakaar bi yàlla dina yàlla du ko tas ndeysaan que mu ñu réer la si biir mooy hmm. nga sol nan di garam bubbu mbooloo topp la nga gaare kat kat wala kat leneen ak leneen ne kii mooy borom xam-xam ndeysaan xam-xam xale boo am fukki at sax mun na xam xam-xam aajul si jëmm aajuwul si yëri mhm. aajuwul si daamara mhm. aajuwul si mbool bu ñu topp mbooloo dina topp ñu fekk dara amul foofu wallaahi lazim dëgg waaw ah, man yóbbu gis naa ko mhm. waaw man man nag <laughs> dépensé naa fu may ne si la exemple wala keneen kaay topp ma pour dafa ma pour wala kaay topp ma pour nga waxal ma li nga xamante ne amul soo ko bëggoon def sax du ma ko nangu parce que xalaat ma kan laay xalaat laaw buur sama war wal ali wax bu wut egg sax moom la kon tey jii taal si la su nit ñëwee nga ne ko diw kay kaay nga wax man maa aay kaay wax man maa mun mm-hmm. exemple leer na la yow loolu nekkul si yow nekk la lépp ay puukaral ay naxaatal ay wax lu dul dëgg mm-hmm. loolu safaan la parce que ragal yàlla su nekkee sa doomu da mm-hmm. ngay jomba amul ragal yàlla su nekkee sa doomu aadama da ngay lekk riba ragal yàlla bu nekkee si da ngay jomba soxor parce que nag nit léegi ñu ci bëri xam nañu yàlla góom nañu yàlla de wóolu na yàlla te ragal yàlla bi moo xaw a des ci seen mbir parce que boo ragalee yàlla doo wax lu bon doo wax lu benn doo wax lu ñaaw lu gën a bon si àdduna mooy fen wala sos wala jël alal jaamu lépp ko xamante ni tegoo ko bu ragalee yàlla bii daal des boo ragalee yàlla toujours yow da ngay xalaat biir bàmmeel parce que ñetti fan bàmmeel taal ku ko sooraale wul bu ngeen bàmmeel am na de <laughs> jéggi siraat jéggi siraat leer mën a jéggi la siraat kon nag ma def lu ma neex wax lu mu nekk pour nax nit wala parce que nit sax kenn mënul nax nit. Mm-hmm. sa bopp rek nee na sa bopp rek nee na parce que boo waxee dëgg. Mm-hmm. sa bopp la bu borom mam bu waxee lu dul dëgg. Mm-hmm. boppam la. kon doomu aadama gémminam daf ci war a génnee lu yàlla bëgg ak lu yàlla santaane tey jéem a wax lu baax jéem a def lu baax jéem a ragal yàlla parce que xam-xam bu gën a wóor xam-xam bu gën a dëgg mooy ragal yàlla ragal yàlla boo ragalee yàlla rek daal kooku du def lu bon du wax lu bon waaw macha allah macha allah jërëjëf Alaaji Demba Touré Kanka Moussa ci leeral boobu li may faral di wax rek li tax def ak yow jotaay am solo. Hmm. mooy waxuma la ki ki ki ki nga xam ne sax mi ngi yaakaar saafara ay soxlaam ci yow. waaye fi ngay waat doomu aadama bi mooy lépp lu mu mën di jóg lépp lu mu mën di bëgg lépp lu mu mën di xalaat. Hmm. na jël suñu borom subhaanahu wa taala hmm. jiital ko ci ba noppi. lu fi saafara moom la lu fi jàppandi moom la. kon delloowaat nit ñi ci yàlla rek defe naa ni loola rek dafa hmm. doy dafa doy secret macha yal na yàlla xet doolu gën a ba gis nga teg ci sa ay bagages yi mag hmm. bokk na ci damay faral di dégg ñu ma gis xaatim ma nga teg ci sa wet hmm. ay xaatim ma ngi nii nekk ci sa ma bëggoon nga wax ma xaatim yi xaatim yàlla ak lan muy doon njëriñam ci biir waaw xam nga xam nga moom ku ne xam na ko yow jàng nga xam nga xaatum Souleymane. xaatum Souleymane. voilà xaatum Souleymane moom. bu dee si bàyyire da ci dox. bu dee si ubbeeku da ci dox. bu dee si cat. da dox côté bu ñu da ci dox. seetaane rab da ci dox jinn lépp lu baax daal da ci dox lu bon tamit dala koy fankal. parce que alxuraan ah? kay même boo tëjoo bu tëj tëjoo xam yaa xam ñaari fukki at. Hmm. macha allah bu ci yàlla àndee hmm. moom macha allah. am nañu koy def cioli mooy kii ndomb takk am nañu ñu ko bëggee rek hmm. waaw parce que léeg-léeg ku dul takk du tekki ci daal ah, waaw ku dul takk du hmm. tekki gàllaay gàlloo la gàlloo la ah moo tax ku ne bul takk hmm. nax na la lor na man de dinaa takk ba sa ba ëgg dënd bi dinaa sangu juróom-ñaari ba parce moo lay muccal ndax lii ak lii <laughs> c'est danger te ku fi tardé tardé tardé yàqule lammiñ ak bët am na seen làmmiñ lu tudd su nit rek day am balaa day am tooxe dana yàqal ngir seen bët taala lu ñu xool rek man mun a jaar ko yi am na ci solo rawatina hmm. xam nga moom ku ne xam na ne reen la reen bi nag ñu bari xam nga hmm. bii nekkul reen kese de reen bii hmm. bii lay reenu fokke bii <laughs> bii tey jii bu doon ko am xam-xam bu gisee day xam du dem tàgguwul tànk am baa bi maa la wax loolu parce que bii hmm. boo ko xoojee. Hmm. ndox bi day xonk cur. bi mu weex weex weex. Hmm. day xonk. soo ko sangoo. comme li ñuy wax léegi rek umute cat rab tëju wala ko mënul am dara wala loo am du toog. macha allah loolu pare nga bu dee tey am sa sànce. sànce bi teree pare teree egg. wala kat nga bugg ko jot mënoo ko jot. nga jël risque foofu nga jël affaire bi am lu ñu expliqué nga suuf ko foofu hmm. alaa xulli alin yàlla ba ci ànd terrain bi duñ ko jot koo doon xëccoon ku la doon jéem a xañ mu may jël daal wala tey ji kër gi bari coow bari xuloo njaboot yi soxna yi hmm. nga risque foofu tamit hmm. ñëpp nemm lañu def maa la wax loolu ah, wala yaa xam ngénteel yaa xam mariage yaa xam phénomène fu ne nit daje rek boo defee nga risque foofu am am ne dañuy ñëw indi seen safaan mm-hmm. ñi dañuy ñëw indi lu bon mm-hmm. tant que gis nga boromam balaa mu egsi bu du kër gi xam ne kii am am na kon day ànd ak lu bonam dem du dugg maanaam yooyu eh, bii ren caaxaan de taal saa kii kay ma ci balaa donc lii kenn du ko looloo yii kenn du ko xam hmm? kenn du ko xar kon ma yóbbu bii rek maa ngi taal yii kenn du ko xar ma yóbbu bii amul solo gis hmm. lambal lu mu dëgëree ni lambal gis nga lu bu dëgëree ni hmm. bu bu nekkee sa ndox taal day mel ni comme Moussa Azou day nooy net ni këj. soo ko defee ndox boo defee ne sa ndox rek day xaar bii garab ren bi yéeme la. Eh, na nañ ko def secret ni seetaan laay bi bi eh, bii bii de ku moo ko mun a am. wallaay de bii taala hmm. bii rek rek rek boo ko sànga bu ci yàlla ande bu laal leneen bu tàkk dara. Hmm. maa la assuré loolu. xam man du ma assuré. Hmm. man de bii. maa la assuré loolu yow moom. sa noon sa noon boo ko jàkkaarla moom day mel ni comme ginnaaw kër boo koy xeeñ barke ni dugg bii nii bii bu na ko sangoo jàkkaarloo si sa noon mu am ndam jamais même bu la moom bu la doon lu bon fexal lu bon day xam ni carrément kat mhm. sama waaj mi kat xaaral ma léegi nag dañu koy am nu ñu koy defee pare bu ñu sangoo pare mhm. waaw avant nga sangu doo ko xar bala boo sangu am ñu koy cofee. Mm-hmm. def si ndigg di owul takk. Mm-hmm. mooy mag mooy gone. effectivement mm-hmm. gone yi xamante ni dañuy tiit guddi. dañuy wala xamante ni dañuy tuur ndox si lal. wala xamante ni côté bu ñu la. bu yàgg bu wax. mais dañuy téye seen lamin. seetaan dañ dafay def. bii lu muy fànq taal ba jigéen bu taxaw lu yàgg bu ñu am doom. bii tamit da ci dox. même am na am na yoo ne am comme si suuf nga xamante suuf day xaw a jël air xam nga fu may muy xaw a néew na xam nga fu may waxee. waaw xam nga wax ji daal. Mm-hmm. bu ñu ko defaree borom mm-hmm. garab bii garab bu ñu yem nga détaillé. macha allah may dem fii ne xanaa. rek ma daal di am ma defee ba yóbbaale ko loo xam ne yëfi mag la muy lii mooy la bii la mu tudd pour yow. bii defe naa ruuxu lañ ko tudd. Ah, waaw waaw waaw amul defe naa bii ruuxu la. ruuxu la bii moom bay dem dox yor sa loxo ni rek mm-hmm. macha allah secret bari mu ngi. doxantu am moom nii rek. Hmm. secret bari. mais dem man li dama doon gis suñu suñ suñ sama ñoom yaay sama ñoom maam dañ ko daan toggee laax laax wala ñu koy def yëngale. soo ko ko yëngalee waaw mooy bopp yi xam kat bopp la. kon yemul ci yëngal bopp rek nga defee si ah, bopp nii pour soow yëngal soow bi pour soow bi mën a tas bu dee tamit cin tamit nga def na pour cin bi affaire bi mën a tasaaroo kon moom yemul ci togg rek kon bii bii bii bu dee ñun bambara hmm. comme diggante bopp yi duñ ko laal côté bii nii. ba hmm. tolloo fii. Hmm. dafa am gàllaay yu sa kër sa oto sa place wala booy dox di yor di ko yor même ba sandoon corte fii ba Abidjan naa wax lu alal dula am sa kër comme sa kër wala sa entreprise tey nga ay jafe-jafe ay tolof tolof ay gàllankoor. Hmm. defar ko nga def ko foofu. wala sa buntu néeg wala sa buntu saal. takk ko ni ci kaw. Mm. rideau yi féete féete ko si mu féete ci biir rideau yi ginnaaw mooy li ma la si ren bi ku indil safaan day ànd ak moom dem ku ci nekk kër gi def safaan sax da nga koy am loo loo loo ko boole. waaw bien sûr. man kese na wante dafa am leneen ñu boole nag mu a gaaw. dugub mm. bi dugub bi nekkul na a. defoon lii pour yëngal soow ak yëngal. non yëngal kese bi. maa ngi gis tam nga teg foofu benn benn njaq la xaw ma daal la. la. daal bi man bii hmm. xam nga daal bi ñaari couleur la yi nan la noir la noir yi la marron hmm. daal bi taala xam nga muy dox hmm. <laughs> loo am bu dem muy dem muy dem muy dem wala mënoo am dara moom ñu def ci biir borom moom raxasoo ci ba pare ñu wax ko ñaata yoon la koy raxasoo ñu xelli ko ci paan ak leket mu ànd ak moom mu sangu su sangee pare xam nga ndaal suuf la mm-hmm. te suuf la pam ngeen la barkeel mm-hmm. parce que ci lañ jóge mu root mm-hmm. ndox mu fees bàyyi ba xaaj guddi quatre heures matin xam nga quatre heures matin une heure matin deux heures suuf bu ko delloo suuf bu set kay nga nekk teg nekk fa kawe la nga bàyyi suuf am ndox mi su tojee bii day dem fii bii dem fii bii <laughs> foo jublu ak fu lay rek yàlla bu ci àndee albarka macha allah yàlla donc daal yëfi mag nga fi génn tey. gis nga teg dënn fi génn bi dafa ànd ak ay bagages am lii même amoon oto tey. mun nga ko jëlee sa kër kër mun nga ko jënd denc ko ci gën ak kii bi affaire bi nu mu tudd saa si olof mooy bu ñu nii. Hmm. kuur bi kuur hmm. bi. boo ko boolee def ko sa kër wala sa oto. Hmm. sa kër sa kër bi boo demee kër am na kër am na demee kër am na seen kër. dañ koy samp foofu noonu. bii lii comme ma wax si ruux bi nu ngi koy dencee si kër gi nii. Mm-hmm. bi tamit noonu la koy dencee si kër aussi dafa am solo laal am lu bari lu muy fànn bu baax moom ci yooyu lay mm-hmm. bi moom bëjjën kooba la. Ah, moom mooy bi mbëri xeeti mbëri di yar loolu dañu naan bëjjën kooba. voilà wante bii dafa am lu mu àndal. dafa am lu mu àndal sol ci sox ci biir. Mm-hmm. bii tamit mën naa def sama pool su ma la ko doo ko xam. bu am na dañuy ñëw am sa am li ñu def seen loxo. seede yàlla bu la bu ñu tappee boromam rek mhm. liggéey bi da dal. Ah, na yàqkat lañ leen ci dañuy nii seen loxo. Mhm. bu ñu seen loxo nii. Mhm. bu ñu seen loxo nii rek bu ñu tappee nit rek la. parce que voilà bon nag su ko defee yow. yow su fekkee da am bii. boromam bu la tappee bu la dóoree dara du la dal. dara dara du la dal. kon xam nga loolu moom macha allah. dëgg dëgg ah, kon ñaan ñaan taala la. secret la quoi voilà ñu bëri nag xamuñu. Mm-hmm. Mm-hmm. luñ la waxul tamit doo ko xam. Mm-hmm. maa ngi gis tam nga teg ay fas boo xamante ni dama daan gis jamonoy gone ñu ngi ko daan bii amul xale amul mag amul liir ku mun na ko takk bii juróom benn bant la. day dox moom tamit day dox ci côté bu ne ci ndimbal. may mi sax mu tamit bii tamit. ku amul bàyyi rek mm-hmm. moo si gën a gaaw mm-hmm. ku amul bàyyi rek mm-hmm. moo si gën a gaaw ku rab sonal mu ngi nii moo si gën a gaaw xam ne dañuy jël ëmb mu yàqu tuuru lii moo si gën gaaw xam ne mu ñu mu ñu gis sa mbaax lii a gaaw mer dëkkee mer dëkkee tëju dëkkee yaram guddi dëkkee tëddi lal bi di tourné gauche tourné droite lii moo ci gën gaaw xam nit nit buñ ko liggéeyee taala léeg da ngay gis bopp bi mooy njëkk métti foofu fekk ñu boppam di métti toujours. Mhm. wala yaramam di dis toujours. Mhm. wala diggam métti toujours xamal ne kooku da nga kaa jekkoo si liggéey jekkoo ko si baat jekkoo ko si def def yàlla mhm. su defee yooyu soo ko defee rek. tabaarakal voilà. moom par passe partout la. passe partout la léegi bii bii sunguf bii. day dox si wàllu comme ni ñuy wax tamit ba tey ci rab tëju. umute wala nga nekk ci place bu noo fi toog place boo nekkee foofu nga dem place boo toog nga dem moom tamit da ci baax wala nga xamante ne ngay jaay mënul jar nga bëgg ñëw da ci dox wala nga bëgg ndomb tànk da ci dox comprendre voilà bii aussi tamit day dox ci comme ubbeeku wàllum wërsëg wàllum xaalis wàllum cat wàllum rab ak bii moom tamit passe partout daal bokk mun ma laa defal lépp xam nga soo waxee lépp. yow daal tey ay passe-passe jamono toll nag dafa laaj loolu moom. passe-passe mooy jamono bi taal. Hmm. ko naan man gëmuma ñaan. Hmm. man ma takk. Hmm. man man moom su ma yéexatu la ñu suuli ko. <laughs> Baadu. nit ñi dañoo wax a a wax a wax muy jalousie bi. taala gaa doon fi karkat fu mu ko jëlee fa amee. Demba Touré de am na kër fu mu jëlee fu mu ko a commencé commenté di wax dañoo fàtt yàlla yàlla suñu borom balaa doomu aadama di bind. Hmm. na moo ñaale ak wërsëgam moo ñaale lu muy am balaa muy faatu. nit bu judd indaale dara. buy faatu yóbbaale dara. xanaa li nga a ak soxal rafet. kon nag nit bu amee ñu naan diw dara de. ñu hmm. ne ma am lii ana yàlla yàlla ay joxe. yàlla ay xañe. bur yàlla ay may bur yàlla ay xañe kon nag loolu moo ñu tardal ñun. xëy. Hmm. yal na yàlla xeb dolli. allahumma alaaji Demba Touré Kankan Sarr. wax dëgg yàlla li ngay wax nii man li tax jotaay ak yow di ma neex. Mm-hmm. mooy toujours rek. Mm-hmm. xam nga ni lépp suñu borom lay tàmbalee. te lépp itam suñu borom lay daal di. delluwaat macha allah. Mm-hmm. donc nee naa loolu kese dafa doy. dafa dafa sant yàlla. te loolu képp dafa doy. jotaay émission waxtaan. ndax nee naa ne euh, euh, lu waay. lu waay mën a nekk. lu waaye mën a jàpp. dëgg la ba jàkkaarloog suñu borom. Hmm. wala ëllëg yomal xiyaam. daa nga a ne lépp dëgg. xam nga xam bi. Hmm. def neex. Hmm. wax lu neex. koo gis nga ñàkkal ko solo. koo gis nga doy dal. koo gis nga tuutal. koo gis nga bañ ko jox cër. koo gis nga daggal ay saaga di ko xas di ko tuumal deram. boo faatoo. balaa nga jékki si daal yàlla dala koy laajaat. même ñuy wax ni même lu ñu wax nii. Hmm. suñu dee rek ngay waxaat. alhamdulilah adduna loo génn sa gémmiñ soo baax a doon koy génn balaa nga jéggi siraat dañ koy laaj. Hmm. yàlla moom. Hmm. doo ko romb tàggalaay ci doo dem siraat jéggi siraat tàggalaay foo ñu laaj la kon nag yàlla nañ yàlla fekk bi buy ñëw. fekk fekk ñu lu yàlla suñu borom. moo ëpp solo. bokk na ci question yi nga xam ne moom laa bëgg ñu jeexalee ko émission yi. lan moo tax Alaaji Demba Touré. waxee ren balaa wax déwén. daaw bi ma fi ñëwee am na loo ma waxoon. Hmm. ma am lu ma ci wax. Hmm. sikki sàkkati. Hmm. waaye laata waxtu wee jotaat ci déwén gii. teg naa ci sama bët jafran. alhamdulilah. loolu lan la ijaaba la secret la wala suñu di dee. waaw ni ma la sànq xam nga taala wax bu egg yàlla la neex. ñaan bu nang yàlla la neex. yéen ñi nag boromam moo ci fanaan. parce bi ma lay wax loolu. dama la ko yéene mhm. dama ko gis mu wóor ma mhm. soo gisee may toog ba at ba at léeg-léeg may doog di def mhm. ah, ma aw ma bi mënu ma tamit chaque jour di def def yooyu parce que léeg-léeg sax yow la sant may wax sax nga ne ma ah sëñ bi gën naa la de ñu de gaa yaa ngi de gaa yaa ngi lay parce que am na mel ni dañuy perte seen numéro effectivement duñu xam fu ñu koy amee fu ñu koy jëlee léegi fekkee gis am na benn xale bu jigéen wala ma léegi nee na maa ngi Louga ndeysaan dama perte numéro ëpp na depuis avant koor bi ma perte numéro ma soxla ma ne ISRA xamatuma sa numéro mu ko jëlee. foofu tapé Serigne Demba Touré parce que man internet boo bindee Serigne Demba Touré rek. Mm-hmm. émission yaa ngi foofu. wallaay ndeysaan mu woo ma. dëggal bi mu wooyee kontaan na bëgg na. alhamdulilah parce que adduna moom noonu la rek ñii ni ma saa su ñii dañu lay bugg mm-hmm. ñii. dañ lay yéene. Mm-hmm. ñii dañ lay fexal ñii dañ lay yàq wante xam la moo xam solo rek. Mm-hmm. nekkul si yoonu jub bi rek ragal yàlla. tegu ci yoon si ba nekk si yoon bu njub. Mm-hmm. nga ragal yàlla rek yaa salaam man de macha allah li may ma xaaram yàlla ci kenn. ki ñaanu ma kenn yow yàgg nañ xam nga. quatre ans ren xam nga gànn fan. ko bu ñu gisante demee ni comme teel nañ a xamante. ndax bi lu ko waral yaa ñu sekk. jaamu bu ñu yéenante moo waral kon man man la si la dama def biñ def bu ne moom xam nga laa bañ. ku ma jéem a xaajaloo ak suñu borom. Mm-hmm. xam nga laa bañ. Mm-hmm. ku ma tere jaamu yàlla suñu borom. loolu moom soo ko defee. Mm-hmm. duñu juboo. wante tant que yaa ngi may bàyyi ma jaamu yàlla. yaa ngi may mu topp sama diine. mën nañ juboo wante soo ma bëggee dugal si naka su noonu moom duñu juboo duñu am. bara ma ne man ku yàlla du faj ajam yàlla ba mu ko xam. ku faj yàlla ba mu ko xam. ku am lu bon yàlla ba ko xam. parce man li may saa su doxuma si lu bon. xaw xawma lu bon waxuma lu bon fexuma lu bon mm-hmm. waaw lu baax daal bu ni bëgg sa nii mm-hmm. ñaanal la wax si ak sabab la mm-hmm. yàlla moo koy mëtee voilà macha allah euh, fi may jeexale nag mooy xam naa ñu ciy tudd bëggoo ñu ciy waxtaan waaye wax ci jaaro na jaaro boo ma joxoon maa ngi ak xam naa lam may jëriñ boobaat tey waaye faaw nga wax ci jaaro yi ndax am na ñoo xam ne coowal jaaro dafa bëri sëriñ bu nekk ngi génnee façon jaaro waa yow nangoo sax di wax jaaro man maa bëgg nga wax ci jaaro. dëgg la waaw jaaro yi moom xam nga lii per lii man lii la per akika. xam nga lii per moom la ñuy per per bi kese rek bu dee original gàllaay bi. per bi kese kese kese ba amul sax téere ci bi. bu dee per dafa am nag original am na lu original moom. si boo dee original kese rek boo defee sa loxo rek macha allah. am na nag téere yi def ci biir bari na façon. même lii sax li ma la wax ne lii sax dañ koy cof di dugal ci biir jaar parce que. per jaar bi bu la neexee yaa ku ne ku ne ku ne téere mu ñu def mm-hmm. moom xaatim Souleymane laay def ci biir mm-hmm. voilà à part loolu lii wala ak yeneen suuf waaw mm-hmm. côté bu ñu soxla mu soxla moom moo nga defal loolu tey boo ubbee jaar bi defal fu borom moom lu amul sens voilà mais bala ngay defal nit ki dara moom defe naa seet ngay njëkk man kay du ma sànq kenn tànn si dugub loolu moom yow sax xam nga loolu si waa ji nekk du sax nekk bitim réew mooy ma man bëggu ma seet man dama bëggoon fu mu ñaanal man ma la ma nekk si su ma jëloon sungufal alxuraan wala jox la xaw ma moo la jàll xaw ma la moo nekk si yow. Mm-hmm. soo na dara wala parce que nit. nit mën nga ko bëgg ñaanal mu dem Amérique. wala mu dem Italie wala mu dem France wala mu dem beneen dëkk. Mm-hmm. su demul dina ko fankal lu bon ci moom. su loolu antul dina am beneen soxla bu ko yàlla antul parce que dafa yaatu quoi. ñaan dafa yaatu wante nag sooy jox nit taala lu ci am solo bi mooy nga xam moom lan moo ko dal. Mm-hmm. ak lu muy dund. Mm-hmm. man de noonu laay def. mooy dëgg tey jii même boo feebaree nga dem dem feneen di faju. Mm-hmm. sa yaram ba de. wala de. ah kay kon tey jii kon tey jii boo ñëwee mu jël suuf jox la. xam nga yow da nga umu. xam nga yow da nga boromam dafa tawat xam nga boromam la moo dal. kon mun na ko def gis benn njëriñ bi. man balaa ma lay jox dara nga song wala nga takk wala nga suur wala nga man moom du ma jox lu ñu naan moom. Mm-hmm. man moom lu ñu naan moom. Mm-hmm. maa ngi leen di mën jox lu ñu naan. jamais lu ñu song lu ñu suur. lu ci des sama course bi lu ma ci xale xasa door a ñu per. Mm-hmm. maa xam xaaju guddi. maa xam suba teel. yàlla dina si def barke solo yàlla. incha allah léegi kon bi ñuy jeexalee rek est ce que Demba Touré di tudd tur yow daal tudd. léeg-léeg nga si tamit ba yàgg daal di ko. waaw ba tey ba tey ba ngi ci dégg. <laughs> yow fàtte naa affaire yu nekk allah. nu parce que dafa moom dama la woo la téléphone ah parce bi ñu nekkee dara maa doon woor doon maa doon maa doon nekk moom ñu ngi ma mhm. aj bopp bi def ko nit. Hmm. li may gis ak li hmm. ma yëg. man yàlla rek ñoo ko xam. man ana ana diw. Hmm. affaire bi commencé rii bëri toppandoo. ma bàyyi mu seet. fëtël bi ngay wax nii. maa ko njëkk a lancé si rajo wax kilifa bu mag ñëw compté ma fekk nga compté ma xaalis bi fekk quatre heures du matin mm-hmm. léppam macha allah parce que xamal laa lay dora taala comme ni xam lépp wax lépp baaxul wante nag euh, doomu adam bu ne mm-hmm. am na ko yàlla jagleel mm-hmm. am na yàlla def si ñoom xam lu am solo rek yàlla nañu yàlla may ñu am ngëm-ngëm am am ngëm-ngëm am pas-pas yéenante surtout ragal yàlla moo la sànq gis ragal yàlla bu nekkee si nit rek hmm. kooku moo am xam-xam kooku moo aay si xam wala soo defar dala yow ragaloo si yàlla soo defar dala yow xooloo si yàlla kooku baaxul kooku baaxul tax la parce que yàlla boo nekkee fu ne fu ne dalay gis hmm. instant nii malaayka mu ngi fi mu ngi fi yow noonu la li may wax ñu ngi koy bind de ñu ngi arrêté kon tey nit loo mënta jiital jiitaloo ragal yàlla hmm. gis boo jiitalee ragal yàlla taala man li nga gis dëkk bii fii damaa waxtaan sama benn xarit dem bu France. daf ma woo ñu waxtaan nekk sama mbokk taalibe Seex bu Sëriñ Babacar Sy mu dee. ma ne ko man damaa waaru dama tiit si àdduna bi léegi mu ma ànd ak Touré. taalat benn instant dama mujjee jooy. Mm-hmm. ma ne ko parce que nit ñi am na ñoo xamante ni ma amee baax na. Mm-hmm. waaw amoon ñu ko amee rek. ni amee daal naa am rek. ndax tekki rek. yow xooloo lew. xooloo la léwul xooloo la dagan xooloo la araam sa yoon yoon am rek. Mm-hmm. ba tax ma ne la man ñëw ma kenn. man Demba Touré. Mm-hmm. du ma ñëwee kenn. boromam lu mut am. Mm-hmm. dama ko ñaan yàlla na yokk. nu ko amee moo xam fu mu jële jëlee moo xam. wante nag nit ñi léegi am-am jaral na lu ne lu ne lu ne ndax nga dem wax lu du dëgg. dem fekkal nit lu bon. nga dem def ci safaan. xaaral loolu pour lan. kan foofu la. yàqam ci àdduna la. nit tànk yaa nga dund déewagoo suuluñu la. Mm-hmm. ñàkk ko dara. Mm-hmm. moo tax ñu ne borom karabu ñu ñàkk ko dara. Mm-hmm. am solo mooy boo xamee lii baaxul boo xamee lii yow bëggoo ko loolu boo xamee lii yow jaaduwul. taala jiitalal yàlla mu ngi lay gis. taala kooku na bàyyi loolu. wante man daal naa am rek. ah garaawul quoi su ma dee yàlla dina mbaal. waaw eh. <laughs> kubar bëggal bàmmeel am na de. yàlla yàlla bay sa bëggal bàmmeel am na de. yàlla ci yàlla eh, kon lu koy waral nag ni balaa ngay génn àdduna. nekkal su lu neex yàlla. Mm-hmm. gis sa xol bi. Mm-hmm. borom moom na jël foot ko mu mel comme eau de javel. gis nga nit su taala. Mm-hmm. non même bu amee ay milliards am ay kër am ay oto am comme ñi matériel lañ ko wax alal. yow doo ko soxal. boo xëyee nga am nga kii xëyee am million. ñaanal ko xam ne wërsëgam la. te alaa an yàlla mu ne la saa yow nga lekk ci. kon ñun ñu am nga naan ko di warul am lii. nii am nga naan kii foo ma yàqal. nga lu garaaw la ñu bëri xamuñu loolu. ndeysaan gisuñu lu ndeyam boote. Hmm. <laughs> koy wëri ko mooy. parce que kenn ku ne secret bi yàlla des moom. Hmm. te am na ñoo xamante ne nañ kenn du la laal am na ñoo xamante ne kenn la taxal moom. soo ko defee trop tard rek kopp sa kaw. dëgg la boo koppul sa kaw borom moom bu amoon njaboot kopp njaboot balaa ko njaboot sax yow la njëkk kopp yow mii ko iñaane. Hmm. kon nit ñi nañu ragal yàlla. surtout suñu biir. di wax dëgg. di yàlla di wax dëgg. di bàyyi ñaan. di bàyyi soxor bàyyi di gi. gis nit. Mhm. day maandu. des fois da nga gis lu bon. nga xam ne boo waxee mu yàqu. na jéem a defar mun na defar nëppil. maandu parce taala dëkk bi dafa toj. Mhm. nit ñi léegi xol yi moo yàqal. Mhm. xol yi ñoo moo yàqal soxor bi moo bëri. ñaan bi moo bëri ñàkk wax dëgg bi moo bëri. kon nag loolu nit soo koy def kooku daal ragalul yàlla. ku ragal yàlla du fen. parce que fen baaxul. dañ ne fen day yëngal arras. alléewul lay fen. <laughs> <laughs> yal na yàlla soppi jikko yi rek yal na yàlla soppi jikko yi yàlla ma ñu xooli laab ma ñu jàmm ak salaam man nag fii mhm. émission bi ñu ngi defee fii Thiès mhm. euh, Mbour on Mbour on mooy fu ñuy wax euh, jàkkee Moussa Tall koñ bi mhm. wala nga naan wetu jumaa ji Thierno Abuja moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla xaraf àjjana. allahumma suñu kilifa bu baax suñu maam bu baax moom itam presque bu mu gaañoo lay génn àdduna lay mat na un saxul doomu yaa ngi fi macha allah. macha allah moom tamit suñu maam bu baax la woon. Mm-hmm. saa koy ñaanal yàlla suñu borom. tawfal suuf ci kawam. ko si yërmandam. Mm-hmm. macha allah macha allah barke bi dellu si doomu aadama parce que moom tamit kilifa bu baax la woon. Mm-hmm. kenn abu jaamu. tabaarkalla dañ koy ñaanal rek. macha allah yàlla suñu borom gën defal ko li nga xamante ni mhm. barke si barmel bi mhm. defal ko si xamante ni yërmande bu baax parce que ni ku baax la woon mhm. ku bëggoon doomu aadama yi amoon yërmande doomu aadama yi nit ku baax la woon. macha allah am jàmm macha allah ñu koy ñaanal rek macha allah daal comme yow saa su cat bañ ko judd si bàmmeel bi. nit ku baax la woon kilifa la woon macha allah kooku moom amul dëgg la. tabaaraka suñu. mbokk la suñu dëkkandoo suñu mbokk Haalpulaar la woon mm-hmm. suñu maam bu baax la woon macha allah macha allah kon su defee mm-hmm. ku bëgg ñëw koñ bi rek mbuuru oo la wala jumaa ji Ceerno Abuja wala nga ne jàkkee Moussa Guitare waaw fii nag fi ma koy fi ma dëkkee fii mm-hmm. mooy sama mag sama tant sama jigéen kooku mooy kër Ulay Ndongo lay ndongo voilà boo léegi xam nga ki ñëpp mm-hmm. lay mm-hmm. jamono bi ma xamul numéro yi moom mm-hmm. kenn réerul boo amee numéro a ba nga ëssi waaw léegi defee numéro bi taala moo nekk 77 318 05 41 suñu paree ma jox la beneen def naa beneen numéro yoo nga ko voilà kon boobu tamit waaw jàll bi mu nekk WhatsApp te te te numéro bi li ma jaaxal mooy bi ma la xamee ba tey moom nga ma sa man dama changé numéro. nga ma sa yor man taala. xam nga 14 numéro bi moom nga ma sa yor. xam nga daal taala. Mm-hmm. tey nga changé numéro. Mm-hmm. comme ma la sànq rek amoon numéro boobu. Mm-hmm. soxla la woo la jotu la. wallaahi man man benn laa amoon ñaari numéro message benn bi def naa su fekkee benn bi expresso. expresso la woon benn bi la woon. te boobu du kiis du changé sax dafa dafa dafa téléphone bi moo rek. ma perte numéro bi ma dem Mali ma fat sa jëlaat. expression ci laa ko ñàkkee ñu keneen. Mhm. am nañ ma woo sax woo naa jiw nee na moo ko mën ko invité parce man boobu moo ko perte sa yàgg na. ci góob bi man maa ko jëloon maye. Mhm. voilà à ma yor nii bi nga wax nii. Mhm. yëpp yàgg na trois cent dix huit. zéro cinq quarante et un soixante dix sept bii. yàgg na si man de. moom bu mën a demit bii moom dafay des. moom moom moom bu moom dama koy <laughs> parce que lu tax boo ko def international. ndeysaan international parce que lu tax taala. change numéro boo foo rek la yàlla changé numéro yu bëri moo baaxul lu nga xam dëgg mm-hmm. gis nit mm-hmm. mën nga am fukki numéro ñu xamal la ci mm-hmm. gars yi suba changé beneen numéro suba changé beneen numéro loolu amul sens la ñu da nga benn coordonnée wala ñaari coordonnée wala bul nekk sax amul fukki coordonnée wala dana bul tax su boo ko perte boo koy bañ a wutaat parce boo ko wutaatul tey ji nii keneen moom la am bu amul fu mu lay gisee ak fu mu lay jotee man numéro bi mooy sama numéro code Mm-hmm. ah kay macha allah. Uh-huh. jërëjëf Alaaji Demba Touré Kanka Massa. Mm-hmm. Kanka Moussa ci waxtaan wu neex wi. waaye mm-hmm. waxtaan wu leer wi. waaye tamit imaan bi ne ci moom muy pas-pas bi ak doylu bi. ak doyloo sunu borom. macha allah yal na yàlla sàmm la te aar la te dina guddal saw fan. dina wéral say cër. yeggali mbooleem yéene yi nga xamante ne rek naalal na ko askan wi yal na yàlla sama borom yeggali la ko ak sago di ñaan tam ci dara ji yonent yàlla bu mel ne salaam. mbooleem koo xamante ne rek mi ngi seetaan suñu jotaay bi mm-hmm. yal na yàlla sama borom defal ko ci dégg. amiin waaye ko ci ci defal pajuk aajo. saa yi ran wa baati na. dara jéem ci yàlla Muhammad salaam. ñu ngi dëmmal Magal Touba. Mm-hmm. di ñaanal ñëpp tamit. Mm-hmm. dem ci jàmm. ak salaam. lépp luñ fi ñaan. yàlla na yàlla xadim rasul. fuulal ko si réew mi. allahumma ci barke kii suñu xalif xalif bi toog. Cheikh taala mm-hmm. taala mm-hmm. taala jaamu yàlla rek mooy dëgg wallaahi ndeysaan gis ko jaamul yàlla mm. <laughs> taala bala moom perte na per nga fi perte xoolal tey ñaata million yi dem di wuti Serigne Touba moo ko liggéey wallaahi ndeysaan ah kon ko jaamul yàlla mm. taala perte nga ñoom def leen seen devoir bi dem nañ taalibe bi nag mooy wax la dégg waaw ah, man taalibe cheikh bi man ñëpp laa gëm wallaahi ndeysaan man ñëpp laa gëm fépp laay dem parce que ndax mm-hmm. wax saa su ne mm. salaatul fati bi bisimilah rahmaani rahiim bi ñëpp ko ñëpp bokk si yàlla mm-hmm. ñëpp bokk si yàlla mm-hmm. que suñu maam yooyu ñooñu dañoo def seen liggéey ba yàlla fay leen te lu mu doon fay man de su ma demoon fii ma ne maa ngi dem def fi benn benn benn xew wala benn kii dara mm-hmm. mun naa am mbool mun naa bañ am mbool wante ñoom yàlla moo leen jagleel loolu chaque année mu gën a yokk gën a naat loolu sant yàlla bu baax yàlla parce yow ku ne xam na ne da ngaa jox da ngaa jeex si yoonu Serigne Touba. <laughs> ndeysaan moo tax man ma ne café ji laay nam su la gis. <laughs> bool yi. macha allah ak bool <laughs> bool yi moom. waaw yëfi bàyyi xaalis la moo tax xam mhm. nga ngóob. dafa am solo. wallaay ndeysaan. man moo tax ma bëgg nit ñi côté boobu gis nga mhm. bu Tiwaawoon jotee bu Kaolack jotee bu Ndiassane jotee bu Yoff jotee wala bu Popenguine jotee. Mhm. poñet da ngay wane man lii dama ko gëm. Mm-hmm. parce que ñun amul lu dul gëm-gëm. wallaay ndeysaan kon nag suñu maam yi dafa na seen dobaar la daal. Mm-hmm. ñoo ci des xam naa ngir ñi buñ ko yàq. Mm-hmm. surtout ñi buñ ko yàq. taala suñu liggéey nañ lu ñu mun. wallaay def lu ñu mun ba yàlla fay leen li kon ñun ñi nekk taalib yi. dañu xam ne taalib yëpp ñoo bokk ndey bokk baay. parce que ñoom mosuñu réeroo. déedéet ñoom mosuñu réeroo. te ba ilaa yi. mosuñu réeroo kon ñun taalib yi ñu nekk benn kuy xewle mm. nga xam ne kat lii diine lislaam moo xewle da am jot demal tey soo demee nag lu la yóbbu diine lislaam moo la yóbbu te farata ba kay nekk sa taalib bi rek mm-hmm. nga xam ne nag la mm-hmm. ngay res nga res bañ a dem kese waaw kese foo nar a dem fenn mm-hmm. def na ko su dul noonu loo wuti foofu bul dem bul dem kon ñooñu kenn amul seen fay yàlla na yàlla suñu borom fayal leen seen xol ci barke Magal Tuubaa bu ñu dëmbal ci barke Xadim Rasul ci barke alxuraan karim ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci macha allah di ñaanal ñëpp rek jàmm salaam suma ma si kaddu yi maa ngi déggalu hmm. parce que wax dafa yombul si lépp tamit jaare si yoon hmm. sant nañu Mawlaana tabaaraku taala jalla jalaalo di ñaanal ñëpp rek jàmm ak salaam kon su defee maa ngi lay jaajëfal yow tamit Samir taal dina wax tamit màggal bi hmm. ñun ñëpp dem si jàmm ak salaam ñun xaadim rasul def saa su ne. Hmm. fekkee nit ñi xéewal yi. bernde yi. macha allah daal yal na yàlla defal lépp daal. ndax kaw naa karim. jaajëfal ko bu baax a baax jox leen dig daje incha allah rabi ci yeneen jotaay xam-xam ak seen jotaay bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.